lépp jëm ci li nga xamante ni moom moo di gàmmu gàmm buñ ko tuddee xel yëpp dem ci ku tedd ka Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom la suñu borom la ala xuliqin azimi waaye Seydina Muhammad ginnaaw loolu tamit buñ ne gàmmu xel yëpp dem ci ku tedd ka Serigne Touba Xaadimu Rasul la ko daan dundee waaye tamit ak naka la ko mag ñu baax ñi nga xamante ne ñoom moo di bisu gàmmu laataa ñuy dugg ci yaatal gi ak forom fàcce gantay mu nuyoo di Serigne Modou Mamoun Niang moom Serigne xaadim moom sëriñ Afe Ñang aousubillahi min alsheytaan irajim bismillahi arrahmaan irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursalin sayidina wa maolana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa jacal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen sunu mbokk internet yi nga xam ne yéen a jàkkaarloog ñoom fii ci euh, site internet bu mag bi nga xam ne mooy 24 actu ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax di jiital ci nuyoo bi nag ak siyaare bi saaxibul fadila ak cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom yokk ko yokk ko fee bàyyi te yokk kattanam te yokk ak wéram te yàggal ko fi lool te ñu yàgg ci ginnaawam te yàlla àgg la ay naalam yëpp ak cheikhul ku ñaaral mboolem njabootu Serigne Touba gépp waaye di ndokkeel mboolem jullit yëpp ci weer wu tedd wi di siyaare bu baax soxna Assou nga xam ne moom laa feggoon ak mboolem équipe bi nga xam ne yéenay ànd. macha allah Serigne Modou Mamoun Niang ci nuyoo bu am solo boobu comme nañ leen ko waxee woon sànq rek lépp rek bu ngeen gisee suñu jotaay lépp rek ngir euh, jëmale ko ci li nga xam ne moom moo di gàmmu ci ban taxawaay la jullit bi war a amee euh, sëñ Modou Mamoun euh, fi ñu njëkk a commencé suñuy laaj mooy lan moo waral gàmmu ngir fàttali askan bi rawatina jullit ñi nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel ci site internet bi di 24 actu. jërëjëf soxna su ñu ngi lay nuyu te di la bu baax noonu ko waxee rek ñu nekk ci weer wu weeru yontu bi sallallahu alayhi wa sallam weer woo xam ne moom la ñuy wax rabiul awal di weer wu tedd bu màgg woo xam ne biñ demee ba am ci fukki fan ak ñaar ci la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gane woon jamono rasulullahi sallallahu alayhi wa di koo xam ne ki ñu ko xamal wala ki ñu ci xamal dara mooy sunu sëriñ Cheikhuna Ahmadul Bamba Xaadim Moustapha di koo xam ne eh, yàlla daana yónni ay ndaw di yónni ay yónnante ñu doon ay lim yu baree baree bari ëpp na ay junni junni yónnent bu yónnante bu nekk am mission booy dox di ñëw di dem waaye ki nga xamee ne mooy Seydina Isa nga xam ne moom moo annoncé dikku yonent bi sallallahu alayhi wa ndax boo demee ci alquranul karim da nga dégg fa suñu borom di wax ne wa mubassiran bi rasulin yaati min baadi yasmuhu ahmad muy wax ak ay ñooñam di wax ne maa ngi leen di bégal ci ab yonante boo xam ne dana ñëw sama ginnaaw turam mooy ahmad mooy muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi muy ñëw nag dafa fekk booba kéefër daj kàpp àdduna adduna lëndëm crise rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gane ci jamono ci weer wi ñu nekk ci diggante ay wayjur yu tedd wayjuram bu góor tudd abdullah wayjuram bu jigéen tudd sayyidatina amina yàlla dogal ci feeñuk jamonoom yu bëree bëri xew na ci yoo xam ne waxtu yi du ko laaj waaye ay mbir yu bëree bëri feeñ na ci bu yàlla dogalee mu feeñ jamono it am na kuñ daa wax abu lahab nga xam ne moog yont bi sallallahu alayhi wa sallam ay doomu bàyyi leen mu doonoon ko bañ yont bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee ba xam ne ab yonente la waaye keroog bi ab jaamam ñëwee wax ne ko sayyidatina amin amina am na gan muy góor dafa kontaan ba jaam boobu da ko goreel kon ñëwug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gore la àndaale naka noonu it moom moom di abi lahab nga xam ne boo demee ci alxuraan da gis fa ko suñ borom di ŋàññe di ko toro xale ngir ay ñaaw-ñaaw yu mu defoon ci yonent bi ginnaaw bi mu demee ba nekk ab yonent tam bañal tam bañal ko moom nga xam ne dangay ngay dégg suñu borom naan ko tabbat yadaa abi lahab wa tabba ma axnaa naa maalu ma kasab abu lahab moomu kontaan googu mu kontaanoon ci bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganay jamono ba goreel ab jaamam wax mbugal ma ko suñ borom di mbugal ci sawara saa bu bis boobu dellu see dañ koy tegg lépp kon rasulullah sallallahu alayhi moo toll noonu bisub ganeeb jamono yi di bis bu tàdd di bisub altine ni ma la ko waxee léegi ci ay waajuram yu tàdd nekk nag ab rasul yàlla suñ borom sallallahu alayhi wasallam bi mu newee ba nga xam ne mën na sëkk ci fi ko suñ borom war a tànnee def ko rasulullah mu ci ñeent fukki atam suñ boroom tànn ko li nga ji lu waral ñu koy gàmm wala ñu koy màggal yont bi sallallahu alayhi moo toll noonu ndax bi mu ñëw àdduna suñ borom dafa wax ne ginnaawam beneen yonent du fi ñëw moo waral muy ku tàdd ku màgg suñu borom bi bind ko mu gënal ko ñëpp waaye mu tagg ko nag ci jikko yi gën a rafet ni ko tàmbalee léegi wa innaka la'alaa xuluqin azim kon kooku mooy xaatimu nabiina wa imaamil mursalin kooku nag mooy waral saa bu bisub ganeek jamonoom dellusee fu ab jullit nekk ci àdduna di ko wooteel di ko màggal fii nag particulièrement fii ci Sénégal nag ñu gën koo miin ci jullit yi fi nekk tarixa yi fi nekk yëpp nga xam tarixa suufiya lañ waaye biñ ci gën a tànn nag ñun gën koo miin mooy tarixal muridiya ku ci gën a fës nag di ki nga xam ne mooy sunu yaakaar yi tey àdduna ak àllaaxira di Cheikhuna Ahmadul Xadim radiyallahu taala anhu looloo waral kon Euh, guddi màggug rasulullahi salaa sallam buñ demee ba ci biir dinaa la wax euh, li waral guddi gi ak lan moo waral euh, suñ borom lan la ci dig ki koy màggal ni ñu ko sëñ Tuubaa waxee ci téeram bu siiw boobu nga xam ne mooy jasbul xulub nga xam ne wax na ko fa ay yoon guddi gi yoon bi salaa sallam ko ko màggal lan la la ci yàlla di fayee. macha allah Serigne Modou ci leeral yu am solo yooyu ci li nga xamante ni mën nañ ne moo waral gàmmu sëñ Modou bu ñu bëggoon a xam ban taxawaay la jullit ñi war a amee ci bisu gàmm. Euh, bisu gàmm moom taxawaay bi nga xam ne moom la ci jullit bi war a am mooy taxawaay bi nga xam ne rek moom la ci euh, Cheikhuna Ahmadul Xadim waxoon waxoon ne képp kuy màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal yow ko bëgg a màggal kaay ma wax la niñ koy màggale te mooy ta'zimuhu bi sunna yaquuduna lil janna di ziyaadul minnati li muxlisin muazami dane woon yow mi bëgg a màggal yonent bi saa salaam maa ngi lay digal na ko màggal ci sunna màggal ko ci sunna nag li ci gën a jiitu mooy jàng alquranul karim waaye mooy def salaatu ala nabi wax nañ ne salaatu ala nabi euh, yonent bi saa salaam wax na ne ci addis boo xam ne wax nañ ne wér na am na ñu wax ne wérul waaye wax ne képp ku julli ci man benn yoon Eh, suñu borom dana bind ci yow dana julli ci yow fukki yoon ku julli ci yow man fukki yoon suñu borom dana julli ci yow téeméer yoon ku julli ci man suñu borom dana julli ci yow junni yoon ku julli ci man junni yoon suñu borom dana la goreel ci sabara kon eh, li ci jiitu rek mooy jàng alxuraanul karim waaye ci ak sell ndax lépp jëf ju mën a doon la koy laytaayal mooy sell te mooy sell ndax loolu suñ Sëñ li wax li moxlisin muazzami mooy koo xam ne da koy sellal ba noppi di ko màggal waaye jàng xasida yi nga xam ne am amdaax la xam nga Seexuna Ahmadul Xadim dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moomoom bis yi moomoom weer guddi yi moomoom bëccëg wax ne moom ak dundam da ko séddale ñaar euh, mooy juróom benn weer yu njëkk yi da ciy julli ci moom yonent bi yeneen juróom yi ma ko ciy tagg salaatu sitta bi madaxi sitta waaye taati batta ma atisaay bi ma koy bi may julli ci moom juróom benn weer di ko tagg juróom benn weer it damay ànd ak di ko roy mooy fu mu teggee ab tànkam ma teg fa sama tànk kon moom yonent bi saa salaam la def muy roy fa kon ab jullit fu mu mën a nekk daal li ko war mooy buy ma buy euh, màggal ga nekk jamono yonent bi saa salaam nga xam ne moo indi lislaam indi ak mucc adduna ak àlaxira na fexe ba ni ko def ci sunna ci dëppale dëppale dëppale ko ci alquranul karim ak euh, julli bi sallallahu alayhi wasallam moom bu dee ñun li ci ëpp doole ci ñun mooy jàng xasida yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa di tagg Yonent sallallahu alayhi wa sallam ak di julli ci euh, xam ne ku gudd a gudd la goo xam ne euh, mooy mu ni sëñ bi da cee rek la ci def mooy euh, julli ci Yonent bi ak tagg ko ak sant wax na ne képp koo xam ne yaa ngi julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa te di ko jaare ci sama téere boobu nee ñaan na ci ñaan yu kawe kawe mooy warfa aliman biha yu zalli zikra wajbur loxol xaatira wasrax sadra yow sama borom yàlla na nga yëkkati ki nga xam ne day julli ci bi saa salaam te di ko jaare ci sama téere bi waaye na nga yaatal ab dënnam te nga defal ko ay xeewal euh, ni ko Sëñ Tuubaa firee ci Jazbul Xulub doy na ci sëkk te mooy euh, laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riya bi laylatu mahwi temps bi wa tuuri si taazumi nee na euh, guddi gi nga xam ne ci la gën gi mbindeef ganee jamono muy rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee nga xam ne guddi la goo xam ne day far mboolem sikk sàkk sikk sikk yi nga xam ne nekk ci doomu adama ki koy màggal sikk yi nekk caw da koy dindi nee na guddi la goo xam ne it dafay faral ay coono jullit bi koy màggal nee na guddi la goo xam ne it dafay laabal ay bàkkaar ndax bii bihaa najaat wal falaa ndax ci guddi googu nee na ak mucc akuk taxee ci guddi googu la wàcc maa sururi wa najaax nee na guddi la goo xam ne it mbégte ak ak ak ci àdduna ak àllaaxira nee na ci guddi googu la la wàcc waaye biha rabaax wa salaax nee na texe ak yéwénu mbir àdduna ak àllaaxira euh, Seexul Xadim nee na ci guddi googu la kon jullit bi euh, maa sururi wa najaax biha rabaax wa salaax ma andi fa ay neexami guddi googu it ci la ñuy jañ mi xeeti mbugal yi ak ak ak ak musiba yi kon jullit yëpp euh, moo xam murid bi la wala tiijaan bi la wala xaadir bi la wala ñasen bi wala laayeen bi nga xam ne guddi yonent bi saa salaam du guddi gu ndaw ndax bihis jiyaadul minnati la wax mooy guddi goo xam ne ci la xéewal yëpp di ko kon ku koy màggal war ngaa xool noo ko mën a màggale ba mu mën a dëppook sunna sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam am am ci ngërëmul yàlla kon moo xam murid bi la tijaan bi wala laayan bi kum ci mën a doon na ko màggale noonu mooy tanzimuhu bi sunna waaye ni ko sëñ Touba dundale moom euh, ragal naa ne nit maanaam mbindeef fekk ko ci ndax ni mu ko taggee ci xasida gi rek ci nga xamee ne kon moom xam na xàqi euh, màggal guddi gi sallallahu alayhi wasallam ndax dem na ba wax di wax di di wax ci ci guddi googu di wax ne di wax ne yonent bi sallallahu alayhi ci boppam nuurun asimun xadira nee nañ xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak laar la gu màgg goo xam ne keroog bi nga xamee ne gare na jamono xusu xay xaysar nga xam ne euh, buur la woon palem ba nee na gis nañ fa euh, leer gu kawe kawe goo xam ne euh, kenn mësu koo gis nee na man kaana fi umul xuraan képp koo xam ne rek nekkoon nga nekkoon nga màkka makkatal mukarrama rek makkatal xayrul xurum bi ku fa nekkoon rek yaa ngi dégg yaa ngi gisoon gisoon leer go waaw kon guddi la goo xam ne daal ñu doon wax ni ko ab jullit war a màggale dañu wax ne rek demal delluwaat ci biir xasidaay Seexul Xadim bu dee amuleen nga su boobaa da xam ne ko ab jullit war a màggale dëgg dëgg dëgg macha allah mu nekk lu am solo sëñ Modou Mamoun kon eh, yaakaar naa ne képp koo xamante ne dégg na la rek dina xam guddi gàmmu ban taxawaay la ci nit ñi war a amee waaye tamit naka la ñu ko war a dundale ki nga xamante ne tamit moo koy dundal ak anam bi mu koy dundalee rawatina yi nga wax eh, sànq ci njàngaleem Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xadimu Rasul eh, mën nañ ne yan ngëneel moo ko ciy fekk wala yan fay ba tey li ma la waxoon rek ne la mawliduhu muazzamu mubaarakun muxtarimu tanzimuhu yan xatimu ala sawi taqaddumi nee na ak gane jamono la goo xam ne guñ màggal la nee na gane jamono la goo xam ne guñ barkeel la waaye gane jamono la goo xam ne guñ warmal la nee na màggal ko nag dafa war ci ñi nga xam ne sax dañ fay jiitu woon taasimuhu bi sunnati màggal ko ci sunna nee na yaquuruna lil jannati dañuy womat wommat jëmeñu àjjana ndax bihis di yaadul minnati xam nga soxna si képp kuy wet àdduna ak àllaaxira ba sa yoon xéewal nga fay nga fay am xéewal ndax Sëñ Tuubaa sax boo xoolee bi mu misaal tukkeem bi da koo méngaleeg xéewal euh, dafa wax ne dafa wax ne dafa wax ne maanaam maanaam maanaam maanaam tukki bi bi mu koy bi mu koy wax damay damay damay xam naa bay du damay damay damay rëcc waaye xéewal daal képp koo xam ne yaa ngi sàkku ci àdduna dara Euh, yaakaar naa ci xewal nga koy nga koy nga koy sàkkoo waaye mu waxit ne fa man yoasi mawlida nabiyina baabul huda fala yuxaasabu gadda faxtar min wa asima comme li nga ma laaj léegi lan la ci jaam bi mën a jële mooy ni ko sëñ Tuubaa wax ne képp koo xam ne màggal nga guddi yonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne mooy baabu mooy baabul huda mooy buntum njub ci àdduna ak àllaaxira nee na képp ku ko màggale nii ma ko waxee nee na na nga xam ne deesu la xisaab ëllëg kon nag na nga ko warmaal te màggal ko moom bis boobu noonu day gis nag euh, borom jàng yu gàtt yi nga xam ne euh, daanaka euh, amuñ pas-pas wala mbirum ahlu tasawuf ñoru leen ñuy wax ne màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bidaa waaye loolu moom ñàkk xam la ndax nit ki sax saa bu bis bi mu ganee jamono dellu si da ngay gis mu ci def lu nekk rawat na ki nga xam ne nag mooy xayru xalqillaahi mooy mooy mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mu wax la ne la fa man yuasim mawlida xayril baraya ahmada faka shahidin shahida badran bi xayri wahami nee na képp koo xam ne màggal nga bisub gan ak yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne mooy ngeen gi mbindéef na nga xam ne mel nga mel na ne yow shahid nga shahid mooy koo xam ne fekk nga xare rawat na xare bu ñuy wax badar ba noppi xeex ci ba noppi faatu ci nee mel na ne mel nga noonu te it fa kullu man anfaqa fii di mawlidihi lmusharrafi maalan bi xayri sarafi wala bi xadri dirhami fa innahu kaman xadar yowma xunenin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayra wala mufaximi képp koo xam ne nee na màggal nga gan ak yont bi sallallahu alayhi wasallam màggal um, dundam uh, gan ak jamono googu nga xam ne gu tedd la nee na jël sa alal def ko ci te yàqte ko nga xam ne defoo li ñuy wax saraf mooy yàq ko ëpp nee na donte benn dërëm la boo xam ne bu sell la nga def ko ci ngir yont bi sallallahu alayhi wasallam nee na mel na ne koo xam ne teewe ne yow mu xane ne moom xare xare bu métti la woon ba noppi muñ ko nga xam ne nga koo teewe xare ko ba mu jeex te muñ wala sax nga fekkee yow ma badar ba noppi dimbale waa ahlu badar nee képp ku màggal yonent bi sa alayhi te màggale ko nii ma la wax nee mel na ne fekk nga xare yooyu noonu fa man yoasi mawrida nabina babul huda fala yoxaasabu xadda xindal xisaabil mufhimi képp koo xam ne màggal nga nga nekk yonent bi sa alayhi wasallam mi nga xam ne mooy buntum jub nee ëllëg kenn du la xisaab ndax nee na fa kullu man xad xadara mawlid afdil wara muasiman mubassira bi sukkarin aw laxami koo xam ne nee na teewe nga guddi gi nga xam ne ci la ñuy màggal yontu bi salaahu salaam moom mi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy gën gi mu def nee na nga màggal ko ba noppi bëgg ci màggal ma nga xam ne da nga koy màggal boole ko di bëgg li nga xam ne sëñ Saliou Mbacke radiyallahu taala noonu la daa def guddi màggal da daa wër di yëkkat ay ñam di ko joxe boole koog di ree nga xam ne ku ko gis dangay ngay bëgg te noonu la ko naa Cheikhuna Ahmadul Khadim doon defee sëñ Tuubaa nee na ku ko defee noonu de bi sukkarin awalaa mi donte suukar nga jël di ko joxe lu saf suukar wala xam ne wala loo xam ne euh, lu lu saf xorom la sukkar mooy bu waxee bi sukkarin aw la xam ne bi sukkarin mooy loo xam ne lu ñu def ci euh, luñ lu ñu def ci lu saf sukkar la moo xam meew la wala café wala yu ñu demee wala attaaye aw la xamin mooy loo xam ne lu lu ñu def xorom la mooy lu mel ne ndawal lu ñu togg yu mel noonu nee na ku def yooyu nee na fa innahu xat safira kooku de dana tuufu wala dana gañe bi maa yi dimu bu sara ci koo xam ne mbég mbég mbég mu sax dakk day day ànd moom te wala yu laay xi dara ra te du dajeek lor mukk yow ma timaayal umam fa nga xamee ne fa la mbindeef yëpp di daje kooku daal na xam ne dana tonawu dana dajeek mbégte te nag du am lor mukk ba faaw. jërëjëf soxna si ci laaj boobu nga ma laaj muy euh, bis yi nga xam ne dañ koy dëppale ak lu mel ne gàmm di ci takk ay ay sëy wala di ko ci àggale xam nga loolu euh, day delluwaat rek ci ci barkeelu laa ko mën a jàppe ndax xëy na ñi koy def liñ ci jublu mooy dàkk nga ne lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko toftale ak seeni bis dana am ci màggal yi dana am ci bis yi tabaski yi bu jàllee waaye dana am ci gàmb gi euh, xam naa ne daal li wér mooy jullit bi moom bi nga xam ne euh, màggal yonent bi sallallahu ñor na ko moom du du ko du ko defee ci pukkare du ko defee it ci ay caaxaan dana ko defee ci noo xam ndax loo xam ne at mi benn yoon la ci doon bala dellu siwaat di te xam nga xam naa la soo ko fekkee góor góorgóorlu ci ba am ci tono ni ko sëñ Tuubaa waxee ci téere bi ni ma ko doon waxee léegi rek yaakaar naa ne moo ëpp doole la waaye ñi ko ci def nag damaa gëm ne dañ ci barkeelu ngir euh, gan ak jamono yéen bi sallallahu alayhi looy ko méngalal rek da koy barkeelaale daal jërëjëf macha allah sëñ Modou Mamoun ci leeral yu am solo yooyu sëñ Modou sa kàddu yi mujj ak laka nga yan kàddu yi dénkaan ngay ndénk ndaw ñi ak taxawaay gi gën a war a war a amee ci guddi gàmm xam naa kàddu yi bala ma tëj damay santaat yàlla bu baax di jënt julli jent bi saa salaam bu baax a baax a baax yent bi saa salaam mi nga xam ne mooy xayrul wara sunu sëriñ ba mooy xaadimu xayrul wara suñ borom mooy rabbul wara waaye Cheikhuna Ahmadul Xadim nag moom la yàlla def muy simaamul wara simaamul wara asri la dallahi fii yadi ndax buñ bëggee yont bi saa salaam rek sëñ Tuubaa ndax moom dafa wax ne euh, dundam gépp def na ko fidaawun lahu dana nee na jaay na deretam yonent bi saa salaam wax ne dundam gépp fidaawu la ci moom da koo jotoo yonent bi saa salaam dem bay wax ne maxat mahabati al muxtaari sayidina xubul maganiya wal ahlina wal walada nee na bëgg gi ma bëgg yonent bi saa salaam dafa far ci man bëgg ak njaboot bëgg ci man ay bagaas wala bëgg ci man leneen dammi wa maali wa awlaadi fi daawun law abdan xadim muskaani li sanada nee na sama deret ak samay doom ñu xam ne moom lañu ñu woowee doom ci man ñoom ñëpp def naa ko ak jotu jëm jëm ko jëm saa salaam wax nañ ne at moom nga xam ne ci la waye ci la waye uh, bayit yooyu suñu borom teg na ko ci am ci am nattu ci mu ñàkk ci njabootam lu baree bare bare doon ko xool ba xam waaye taxut muy yëg am na ku ñëwoon ci moom di ko wax ne ko te ngay ñaan sa boroom mi nga xam ne juboo nga ak moom ñii di dem des fi waaye da ko wax ne ko laa ma laa mu àqiba li xukumi suñ borom bu xasee atte ab atteem amul appel loolu la koy Seexul Xadim tontu kon kooku ni mu bëggoon Yonent bi sallallahu sa wasallam yor na waaye jaayante woon ak Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ba wax ne saa buy buy taalif xasida gi ba egsi ci foo xam ne dañoo war a xonkal mbind mi maanaam bu egsee ci baat boo xam ne baatub Muhammad la wala baatub Allah Sëñ Tuubaa dafa jaayante woon ne dañ ko da koy da koy da koy xonkal parce que boo xoolee xasida gi turu yontu bi sans dañ ko melal waneen melokaan wu wert waaye moom dafa waxoon ne saa bu agsee ci turu yontu bi sans da koy xonkal bis nag muy bind ba àgg foo xam ne dafa war a xonkal turu yontu bi sans salam mu xool ne da daa ji jeex na daa xonk ji te waxoon ne ko dam mi sama deret dama ko joto yontu bi sans salam la def dafa sot xalima gi ba mu ñaw mu ko bënn ci yaram wi ba mu nàcc mu koy sëpp di ko bindee tur yonent salaam kon kooku ni mu bëggee woon yonent bi salaam eh, amut ku ko ku ko ku mel ne moom wax na it bëgg ma bëgg rasulullah saa salaam àgg na ci sama lex bi li mu nooy nooy su ma doxoon ba gis ak dëgg yonent bi saa salaam nar ca teg ab tànkam ma jël sama lex bi lay taayale ko ko tànk bi rasulullah saa salaam dëgg jàmm ma tànk tànk bi rasulullah salaam mucc kon buñ demee ba fii jamono toll ay nit ñu weex di ay yëfër nit ku bon bu ñu wax Macron nga xam ne xale bu ndaw la xamul pas-pas xamul diine lislaam fu mu toll xamul ne moom réew mi mu jiite muy France euh, li ëpp ci réew ma ci ay gone ay jullit lañ rasulullah salaam lañ gëm bu fekkoon ne kuy àttewoo ci diine ci àdduna képp la wutoon am sañ-sañ boobu sañ-sañ boobu rawat na muy laal pas-pasu milliards yi milliards yi doomu aadama kon kooku nit ku ban la koo xam ne adduna bépp dañ ko war a dénoncé dal ci kawam nag maa ngi interpellé euh, jullit yi àdduna bi rawat na waa Sénégal nga xam ne réewum jullit la 95 pour cent ne yépp ay jullit lañ lii nañ ko ñaawlu ba adduna bépp xam ko ndax rasulullah salaam suñu borom moo bind tànn ko bëgg ko mu gënal ko lépp mu jiital ko mu nekk yonte boo xam ne mbégte la rasulan mu bassiran mu bassiran la la doxoon waxoon ne yonte ba waxoon yonte saa sallam waxoon ne suñ borom wax ne ko wama arsalnaaka illaa mubashiran wa nasira wala wala wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yón ñu ma la lu dul nga nekk yërmaane ngir mi def yëpp kon ko kuruñoo seetaan kenn di wax wala muy ŋañ wala muy wax lu ñaaw jëme ko ci moom ñu ngi koy ñaawlu fa ba fa ñaawlu gën a mën a yem ab jullit nag mënut na yonte saa sallam waxoon rek ab jullit saa boo xamee ne gis na loo xam ne lu lu bon la na ko dindi ci loxoom su ko mënut ko tudd ci aw làmmiñam su ko mënut na ko mettlu ci ab xolam waaye ñun ñaar yi nga xam ne mën nañ ko moom muy wax ko ci suñu làmmiñ ak mettlu ko ci suñu xol ñu ngi koy mettlu bu baax a baax ndax rasulullah salaam lu ko waaye wax kat sëñ tubaa ko war a fay doon dëkkam bii di tubaa moom biir na ne rasulullah salaam sëñ tubaa jaral na yonent bi salaam jaral na ko lu nekk ci àdduna keroog ba muy jaayante dafa wax ne rasulullah salaam mi may jaayanteel de bëgg naa ko mbëggeel goo xam ne su ma wéroon ne asamaan wér gi ma wér ne si moo moo ko daa tiim moo may tiim danaa ko liggéeyal ba am li ma bëgg ci moom te liggéeyal na ko ba mu nekk ab ab xaadimam ndax chakartuhu is xasani bi xidmatil maahi chani saa xidmatin fil alani loxoo fakka wala mi loolu la wax kon ñu ngi koy mett lu baax a baax message bi nga xam ne nag maa ngi koy jotli ndaw yi rawatina fii jamono toll nañ xam ne àdduna suñ borom bind ko ngir mu jag dana tane nag waaye bëgg àdduna wala bëgg teraangay àdduna wuuta jaral kenn muy xaru wala mu jaay bakkanam phénomène bi xew ki nga xam ne bis bu set nga dégg ñoon ay dizaine de personnes wala ay centaine de ñi ngi dee di mbëkk ci gaal yi nañ xam ne loolu xaru la te ab jullit saa bu xaroo rey bakkanam te tey ko bu ëllëgee ba dee ak suñu borom dana ko layante wa man xatala muminan mutaammidan fa jasaawu jahannam la ñu wax wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jasaawu jahannam képp ku rey bakkan bakkan nag moo xam sa bos la moo xam bosu jàmbur la waaye saa boo ko reyee te yàlla reyu ko yaa ko sabab nee na bu ëllëgee sa fay mooy sawara nañ gëm yàlla te gëm yonent bi te nangoo liggéey te lu waaye am mu doy la waaye bu wurte jaral kenn muy kii loolu nag li ko mën a indiwaat mooy tënkuwaat ci ak jub waaye tënkuwaat ci diine lislaam ndax lislaam prévoir na lépp képp koo xam ne fës ngaa yéene jiitu ateb suñu borom da xam ne da ngay sonn rek ndax alxuraan da wax ne wa eh, isa isa jaa ajuluha laa yastaaxiruun chaata wala yastaqdimuun fa isa jaa ajuluhum fa laa yastaaxiruun chaata wala nee na ab dig saa boo xamee ne egsi na nee na du jiitu benn saa waaye du du du mooy benn saa du retard maanaam du avancé du retard nañ gëm yàlla bu baax a baax te góorgóorlu bu baax a baax ngi sant bu baax a baax te leen di gërëm tey sant ci initiative ndax gis nañu lépp loo xam ne xew na ci diine lislaam moo xam màggal la moo xam mawlud la moo xam lu mu a doon waa 24 euh, actu di ci def seen seen taxawaay yu am solo yi ñaan nag yàlla leen yàlla boole taxaw te sutura leen te àgg leen fa ngeen jëm te def seen organe bi mu dem ba am télévision am rajo am ni ngeen ko bëggee di ñaanal mun Mountakha mu yàgg fi lool te wér ak njabootu Serigne Touba gépp in uridu ila al islah mustata'tu wa ma tawfiq illa billah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah euh, sëriñ Modou Mamoun euh, ci leeral yu am solo yooyu comme ni ko waxee woon sànq rek moo nekkoon suñu gàntay lépp rek jëmale ko ci gàmb gi euh, sëriñ Modou Mamoun Niang moom sëriñ Xaadim moom sëriñ Afe lépp rek jëm ci gàmb gi ku ne dégg na yaatal li nga xamante ni def na ko ci rawatina guddi gi anam bi nga xamante ni moom lañ ko war a dundalee waaye tamit comportement yi nga xamante ni moom la guddi gi laaj lépp rek macha allah bi yaatal na ko mu nekk lu amu am solo ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci oyof gi nga xam ne oyof na ko ba yombalal ñu li nga xamante ne moom moo di invitation bi waaye tamit duñu fàttee sant ki nga xam ne moom moo di suñu Xaadim Mbàkke di suñu wëlëre di suñu lépp daal di sant mu Diouf mi nga xam ne moom moo nekk ci wàllu caméra bi bu yi macha allah lépp rek moom la waaye tamit duñu fàtte benn yoon seex mi nga xam ne moom mooy jàpp ci montage bi ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm fu ngeen mënti nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen jox dig daje wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu